Euh, daanaka daal ab euh, pédophile la pédo waaw kay la boo xam ne euh, bu doy waar bu redoutable boo xam ne ñëwoon na Sénégal jàpp nañ ko nag bi laa la jox de jàpp nañ ko te junni xamu ñaata dossier la def noonu ñu ñu mu ko def te déjà Sénégal rek bari nañ trop trop rawatu naa na yeneen dëkk yoo xam ne ñu ngi ci sous région boo xam ne jot na fa jàpp te li mu def Sénégal daal ci ay xale di leen jox xaalis di leen def naka su dul noonu def di leen filme hmm? la doon def doy na waar mais alaaji dossier bi gën a doy waar mu ngi ci libération parce que lii moom euh, mënuñu koo ñàkk wax pour waajur yi surveiller seeni hmm. doom hmm. alaaji dafa am kenn koo xam ne dafa téléphone police ne dafa am benn appartement boo xam ne duñu tudd immeuble bi nag. Mhm. mun leen immeuble bii nii dañu gis ay xale yoo xam ne dañ ca nekk di def naka sudul noonu. Mhm. moom nag waaw moom nag mu ngi téléphoné police euh, wax leen loolu. Euh, benn bi benn bi nag mi ngi Scat Urbam. Mhm. ca lañ téléphoné ñu daal di dem foofu noonu xool immeuble bi nee na bu ñu daal di duggee ci immeuble bi ci premier étage bi alaaji. dañoo choqué. Hmm. parce que premier étage bi déjà gis nañ fi ñaari euh, benn appartement bi ñaari góor xale yu ndaw de xale yi ma ne alaaji hmm. hmm. diggante 17 ans ba 19 ans la ñu am. 17 ans 19 ans. ñu def am na ci góor yu ñu am 22 ans. néeg bu ñu dugg rek par ñett ñoo ci nekk ay góor. ci néeg yi ci néeg yi bu ñu xoolee ba ca biir dañuy gis ne am nay préservatifs yu ñu utiliser ba pare. te rewul dañuy tëdd ñoom di waxtaan daf yaramu neen. góor ñaari góor góor. su néeg maanaam premier étage ba ñaari néeg yi ca ne gis nañ ci ñetti góor. waaw yeneen ba nu yéegee aussi. troisième étage waa police gis na ay xale. xale yooyu nag bañ leen jàppee ba pare dañu ne ñoom. Mm-hmm. appartement yi dañ leen di loué trente mille francs guddi bi. Mm-hmm. jàpp vingt cinq mille. la ñuy apartement appartement yi nuité bi. Mm-hmm. ca la ñu boolee seen yeneen moroom yoo xam ne ña nga maris. foofu nag fala raay ba ndax foofu jàpp nañ fa juróomi ñaari ay góor la Euh, juróom-ñaari nit ñaari góor lañ juróomi ay jigéen lañ. jigéen ñi nag am nañu 19 ans waaye góor yi ay mineur lañu. Hmm. ah mais góor ñi nag yëfu góor jigéen lañ doon def ñoom ñëpp. ay mais ñoom tamit ñoo doon indil client xale yi jigéen ñi. Hmm. xale bu jigéen benn bi ñu ko laajee dafa ni mi ngi tase xale bu góor bi ci benn sabar. Hmm. fa xamante di gisante. mu ne ko man nag góor jigéen laa mais naa la indil ay client léeg-léeg mu dugal ko ci tabax yu yàqu li boole ko ay client ñu partagé xaas bi ci digg bi. moom it bu amee client góoram. wax dëgg yàlla da ciy nekk ak moom. góor nee na nag. <laughs> Eh, man xale bi ma la xale la. mais bu xale bu góor nekk góor jigéen day am client góor. day am bu ñu baaneeg moom. buy baaneeg moom. <laughs> ba pare day am client góor yu muy boole jigéen maanaam bu dee bu góor ji. Mm. góor kon client bi day am bu bëggee góor góor bu bëggee jigéen. bu bëggee jigéen mu ko ay xale jigéen yu ndaw. laa wala quwwata. te marchandise lay doon courtier la. moom nee na moom mi ngi eh, fayeeku diggante trente mille jàpp cinquante mille. Hmm. moom xale bi. ñaata at la am kooku. xale xale bu góor boobu. mineur lañ la mineur la mineur la xaaral ma vérifier léegi vingt ans. at doom vingt ans du mineur. moom vingt ans la. mais yeneen xale yi jigéen yi mu doon nekkal ay mineur lañu parce que xale yi nii ñi ngi am dix-sept ans. du kooku itam mineur 17 ans mineur la. 17 ah, ans léegi 17 ans. walaay 17 ans mineur la am na ci ku ci am nag 19 ans. ni alaaji imaginer ku ne na xool sa koñ xale bu am 19 ans ñu ngéntu ko barki dee boo jaay. fit bi xale yi am. non waxuma loolu de léegi léegi booy. nee na moom séq naag xale bu jigéen nee na moom séq naag benn góor boo xam ne après dañoo échanger benn téléphone. xeetu marque bii rek. Hmm. mu jël ko jox mu jël ko jox ko. waaw góor jox ko loolu la ko fay loolu la ko fay. waaw xam naa xam naa ku. la ko fay ku góor gi moo am téléphone bu bu bu. seer bi waaw hmm. ku jigéen ki am bu yomb. boobu faaw mu dañoo dañoo dugalante. boobu faaw mu faaw mu <laughs> nga ne dañoo lan. ndax boobu da da da da daa sonn daa <laughs> sonn. daa sonn. en tout cas euh, mbir mi mi ngi am diggante cité Soprim diggante cité Soprim la ak Mariste. tagal ko ci baan mais <laughs> mais jàpp nañ leen ñoom ñëpp nañ leen boole fukk ak ñaar ay xale yoo xam ne góor jigéen lañu. mais système bi ak ñaari jigéen. ñaar système bi mu ngi soog a xew de. xale yi jël appartement alaaji alaaji ba appartement meuble yi amee. yàgg na. mais benn benn jeune bu tuuti bu ñëw dëkk ak jigéen. Mm-hmm. ñu jël seen appartement mais ñoom bëggante wuñu ñoom duñu duñu fajalante aajo. Mm-hmm. mais ku góor ki day uti client ku jigéen ki uti uti fi léegi ku jigéen ki bu utee client danaa ko ah, ko kër gu lëndëm. léegi ku góor ki bu amee koo xam jigéen la bëgg a bu ñëwee ku jigéen ki jox ko kiyam pourcentage am. waaw ah. ku jigéen ki mën naa am ku bëgg a tëddee góor. mu jox ko ko mu jox ko góor mu fay ko góor ko nag mu jox ko jigéen pourcentage ah, oh mais loolu bariwul loolu bu su manqué soo ko dégg bii mu manqué soo ko dégg bu ah. saay saay bu bon bii yoon ay ah, yàlla sàmmal ñu suñu njaboot yal na yàlla sàmmal allahumma amin allahumma amin des fois da ngay nekk ci dund gu neex sa doom ñëw mm. naqar boo te ñoom foo ci dem diggante bu Marispec Cité Soprim bi yëpp néeg yi ñu dugg yëpp dañoo fekk ay préservatifs yoo xam ne utiliser nañ ko ba pare ah ah ñoo salté xale yu ndaw ña nga ca xale yu ndaw loolu ñuy dund xale yu ndaw. maa tey ci suñu ndawal yi ah, hmm. suñu ndawal yi. ñooñu tey ñooñu kenn du leen tudd de. waaye bu doon am ndongo daara la ñu fekk fii oto laal ko. wala ndongo daara mu nekk fii ñu naan balen ñu commencé ndaa ndongo daara yi taalibe yi ci mbedd mi. <laughs> wax nañu ko ñu ñu ëpp client nag. ah waaye dañ bàyyi mu seet ah, rek ah, ah, déedéet dañ koy bàyyi mu seet mu sedd nag quartier xam nga xam nga xam nga yooyu da ngay tooñ ñoo xam ne da ngay stigmatiser waaw ñu quartier waxuñu man man man man Baye Cheikh man mu dëkkee hmm. ñu ni ñu ni ñooñu si ne am nañu ay client wakaam la ñu waa ñu ma dara hmm. da dana fu ñu ëpp ay client waaw te ñoo dem fu ñu ëpp ay ko mbote ñàngul corona <laughs> ma paie. cas contact cas communautaire. Moustapha ñaata cas contact la. du zone yi yëpp. résultat corona ngay dugg de. du zone yi du zone yi yëpp. dama naa géej ma ne ñëw gis nga alaaji yow. daal di jël cas bi Aliou daal amiin Pauline Thiam maa ngi dañuy dem ak Idrissa Diémé ci xale bi nga xam ne amin amin Baye xale bi nga xam ne dafa faatu ci bassin de rétention bi moom moon ci ëpp information moom la ñuy dem jëli chimère bu yembee rek ñu ñu séq waxtaan ak euh, Idrissa Diémé wallaahi ndeysaan yéen a yaay seede mm. ah. ma nee na du lu bees de day soog yow moom laa lay du lu bees comme la xew du lu bees de nee na waar de. Dubaay lu mu tuddee Dubaay naan paata naan. poti poti a tudd. Pota Pota dafa dafa dugal sax puuj <laughs> ah, loolu la. saa ma déggee poti paat gi damay jàpp puuj paat bi. Ah, la fay nekk dina dina jur dina fay nekk loolu la di. dafay nekk loolu la di. oui. Idi ñu ngi lay nuyu. Euh, ma lay fay Mantu. waaye tus bi nam na la Idrissa. di di di nuyu di di nuyu El Hadj. Mantu ah, ah, waaw Idrissa. ci loo ne. oui. maa ngi lay ziar. ah fii lépp maa ngi delloo ziar. jéeme jéeme nañ la waaye. ah maa leen ndaw waaye waaye fi fi fi ngeen ñu dugalee daal. Hmm. Hmm. buñ sañoon daal nopp du dégg yooyu. dëgg la de. non hmm. dina war laahi Idi. naka ma nag. sant rek. alhamdulilah alhamdulilah. voilà yow Idi lu xew foofu. ah wax xaw nga ko junj tuuti mhm. maanaam jéeya bu am Kër Massar ku ko mhm. wax nag xel yëpp dem ci commune bu Kër Massar Nord. am ngeen ni que rek ñaar fukki fan ak eh, ñeent amoon na sax benn doxu ñaxtu boo xam ne askan bu yeewoo eh, ci quartier yi di mel ni Aliou Dia Daaray Kaamil quartier Doubalès ak yeneen quartier yu nekk Kër Massar Nord génnoon nañ. luñ doon jooju rek mooy na leen wàllu laataa nawet bi di ñëw parce que gis nañ ni que bëri na ay quartiers yoo xam ne Mantoulaye dañ fay gas. Mhm. gas nag pour rek eh, jéem fa dajale ndox mi waaye malheureusement lu ñu waxoon buñ fa defee ndox yi dinañ leen fa jëlee waaye malheureusement ndox yi ba léegi ñu ngi fay exister fu ci mel ni quartier Nguer démb jéeya mujj na fa am ndaxte. Eh, benn xale bu am diggante juróom benn eh, juróom-ñaari at ak juróom-ñetti at eh, moo ñàkk bakkanam ci yooyee kàmb yi nga xam ne gas nañ ko ndaxte du bassin de rétention Mantoula il faut le rappeler parce que bassin de rétention boo ko déggee day am protection day am leneen ak leneen li ci topp waaye lii ay kàmb kese la ñuy gas bàyyee ko noonu bu boobaa nag ndox mi dañ koy drainer yóbbu ko ci yooyee kàmb te oh. boo xoolee souvent day nekk ay kàmb yoo xam ne fu ñu koy gas ay zone la yoo xam ne xale dañ koy fréquenter ndaxte eh, quartier Nguer boobu lay may wax eh, xale boobu ñàkk bakkanam ñu fàttali ni eh, muuma la ku ne muuma nag xam nga mënul wax bu doon koo xam ne peut-être mën na wax sax ay léewoon ba doon dugg ci ndox mi dina yuux ak yooyu mm-hmm. waaye kii malheureusement pour lui mm-hmm. ñàkk na bakkanam démb ci ngoon ñu fàttale ni Euh, foofa xale boobu ñàkk bakkanam soriwul dara ak li nga xam ne moo nekk benn daayra boo rombee daara bi tamit à quelques mètres mu am benn école élémentaire c'est pour dire que euh, dañuy def ay projet yoo xam ne fu ñu koy def itam loraange rek lay jural askan bi rawatina projet yoo xam ne envergure yi nga xam ne yu am solo la ndaxte ñu fàttali ni kamb yooyu ñuy gas yu ci gën néew dina dem ba ay deux voire trois mètres te du am benn protection te fu ñu koy def day nekk ay zones yoo xam ne xale dañ fay fréquenté bari na nag Kër Massar xam nga maa ngi lay naan euh, Kër Massar euh, noor la mbir moom xewee rawatina quartier Nguer Kër Massar sur itam même constat lañ nemmeekoon askan bi yàgg nañoo jooy par rapport ak kamb yi ñuy gas bu inondation amee askan bi certes nag dañuy gis kër yu bëri dañuy nekk ci ndox pour soulager leen. dañuy gas ay kàmb mais bu nawet bi rombee rek noonu lañ koy bàyyee am na yoo xam ne sax du ñeen sëkk école unité 14 même chose la foofu tamit benn paxa fa ne ay xale dañ fay dem euh, di fa dem nappi mantulaay mu nekk ay situation yoo xam ne askan bi yeewoo ci Kër Massar ba léegi ils sont laissés en rade par rapport ak projet lu jëmee ci wàllu inondation il faut le dire année yëpp ñu ngi koy jooy chaque année même proposition la ñuy wax chaque année ay milliards la ñuy fii ci Kër Massar waaye malheureusement dañuy gis ni que buñ tàmbalee projet du egg te lii askan bi jooytu woon nañ ko nee nañ kàmb yi buñ ko suulul jéeye mën na fi am jéeye am na te ñu fàttali ni tam mantu même bu dul xale mhm. mag mën na ci des ndaxte mhm. Mhm. am na zone yoo xam ne dafa bëri ay mbalit dafa bëri ay salte day daal di naaw ñëw teg ci kaw ndox mi yow mën nga ñëw ba dugg ci sax doo xam ne kii ndox la kon donc mu nekk danger yoo xam ne askan bi ñu ngi koy dund saa su ne fi nga xam ne moo nekk Kër Massar rawatina fi euh, nga xam ne moo nekk Kër Massar Nord bu démb jéejee am rawatina quartier bii di quartier Nguer Mantoulaye. Mm, jaajëf Idrissa. ñu lay jaajëfal. jaajëf Idi kontaan nañu wax dëgg yàlla information bi leer na naññ naññ naññ naññ j'espère que autorités yi ñu ngi dégg bu baax a baax man cee def mhm. saafara ñu ngi masaw nag balaa ngeen dem trafic doo doo ko enchaîner la dañ koy enchaîner euh, euh, dama dañu masaw yaayu xale bi nga xam ne moo ñàkk bakkanam ay parents di masaw bu baax a baax ñaan yàlla suñu borom rek mu uufal ko gën di mbindeef euh, ñu ñu dem ci lakk gi mhm. lakk gi moom daana ko ñëw naa ci mhm. bënn nañ pën borom këram arrêté ak essence jël allumette magasin ba mu jeex takk takk takk takk. cey ah déglu femme bi. allahu akbar. allahu akbar. ngéema na dafa ñuy ñaan de. ñun daal toog nañu ci suba gi sama jëkkër war a ànd ak sama doom dem Dakar ma génnee sama néeg ñëw ubbi buntu kër gi dellu si waat sottil sama jëkkër ndox ci buntu kër gi ma duggaatee ci kër gi ma sama doom bi gaawal balaa sa papa de gaawal gaaw gaaw mu ne yaay jaaru rek laay takk ma ne ko benn problème ma daal di jógewaat foofu di ñëwaat ci buntu kër gi rek fekk paa bi génn na daan na ma umi kaay kaay kaay kaay dematuma dematuma dematuma ma ne ko lu tax dematuloo lan la lu xew ay jaw lan moo xew mu ne ma dematuma laa la wax après mu daan na ma ñëwal xale yeeg ñëpp ñu génnandoo ñun ñëpp ci buntu kër gi ñëw fekk oto bi dañoo jël paaka jamat pono yi pono yi yëpp la jam ah ma ne ko lii mooy lan mu ne ma lii mooy lan xamuñu nag ki def ndax bu ñu xamoon ki ko def xëy na du def lu bon lii mu ma defaat organisateur bi la dem woowi ci organisateur bi ñëw xool ko ne ko papa lii ay paaka la organisateur baa ngi nii ci soo koñ bi ne ko lii ay paaka la ma ne ko demal mu ne ma caam garaawul bàyyi noonu rek ma ne am ah, loolu nga wax amul problème ñu bàyyi ma génnee boutique bi nekkoon sama biir kër parce que sama kër laa ubbi woon benn magasin bu ndaw magasin bi defaluma ko sax buntu fenêtre laa ko defal ñaari fenêtre ma nit dafay nëbbatu nëbbatul yow ci ñuy nëbbatu nga bokk ma ne ko amul benn problème saa moo xew waxi ubbi buntu rek mu ne ma déedéet doo ubbi buntu ma ne ko amul benn problème kuy jënd damay dugg ci biir kër gi lay dugg ma ubbi buntu bii ci biir mu dugg xool li mu jaay ko mu dem ma toog benn xamatuma sax jour bi ma ubbi mais daal le 27 moo waroon a doon euh, deux semaines. le 27 moo waroon da nga chargé da sa biir kër magasin bu bees. magasin bi yàgg na sama kër yàgg na sama kër may jaayee sama kër di jaayee sama kër ba mois bii ñu génn nii. lan lañ la def. dañoo lakk boutique ba ma génnee. boutique bi ma génnee. y a deux semaines le vingt sept la am deux semaines. naka naka lañ ko lakkee dañoo dugg ci biir boutique bi wala dañ ko dajji wala. nak naka lañ ko lakkee mooy li ma gis àdduna gis ko. mooy damaa tëdd di nelaw ba deux heures du matin am sama dëkkandoo bu rakkam doon xiyaam moo seen tàkk-tàkk bi parce que moom ci kaw terrasse yi ci kaw étage bi foofu la doon xiyaamee mu gis tàkk-tàkk bi wax jabaru magam ndax yor nga numéro madame Diaw mu ne koy yor naa ko mu woo ma jotuma fekk maa ngi nelaw xam nga ne deux heures du matin maa ngi sama xaaju guddi. bi ma wëlbati koo sama doom bu jigéen ñëw ne ma yaay yaay am na kuy fëgg ci buntu kër gi ma ne ko kuy fëgg ci buntu kër gi mu ne ma am na. laa daw ubbi buntu kër gi. buntu digg bi bi ma ubbee buntu digg bi mu ne ma ay yaay bul dem xamoo kan la ma ne ah ma laaj kan la ma laaj ñu ne ma ñun la. mu ne ko yow la kan mu ne ma ñun la ñun la man la Omar ak euh, Ndeye. ma ne lu xew mu ne ma tante gaaw sa boutique baa ngi jeex ci a génn jël caabi ji daw dem ci kër googu parce que ña nekk ci biir kër ga man maa leen luye kër gi man maa yor responsabilité kër gi. ci même koñ bi la. ci même koñ bi. damay toog ci boutique ba di gis sama buntu kër. Mhm. kër googu kër googu tamit sa kër la. sama sama benn euh, frère laa ko mën a tuddee parce que sama frère la daal. moom kër gi man maa ko koy luyal boobu ba léegi. ok continuer waa waaw léegi si laa daw nag dem ci ginnaaw. daal di fëgg paranteeru ci ma luye ma fëgg ko. daal ne ko Anta ubbil Anta ubbil mu ne ma lan la taa lan la lan la lan la ma ne ko ubbil man la taa ubbi. kër gaa bitig baa ngi lakkati ci kër gi la jëm. mu daal di daw ubbi gi moom a jëkkëram ak wujjam ak ñu ne ci biir kër gi ñëpp daw génn jëkkëram bi muy génn short la génnee ak yaramu nekk naka la ñu ubbi buntu kër gi rek man ma daal di daw rek dugg ci biir kër gi jël caabi bi ubbi bi ubbi ñëpp a ñu naan bul ubbi lul ubbi ma ne leen damay ubbi pour ñu mën a fay lakk kii ci laa ubbi buntu yi première pas sotti ndox sax man maa njëkk a tànk ci bërigo bi sotti kon bi ñëpp génn kenn kenn nalawatul ñëpp génn ba lakk gi fay ba lakk gi fay mënuñu la wax kii moo lakk lakk gi nag essence daal la sotti ci beneen bunt ba ca ginnaaw rido la buntu bi rido la essence la ñu def foofu jël almet taal d'accord buntu bi ci ginnaaw dafa nekk ci mbedd bi wala dafa nekk ci biir kër gi ci mbedd la nekk ci mbedd la nekk ci mbedd la nekk ok kon kooku dafa tëb miiru cigarette bi mhm. ak boutique bi ñoo seq mbedd mi mhm. miiru cigarette bi ak ak ak ak euh, kër gi ñoo seq mbedd bi. d'accord li may laaj li may laaj mooy maanaam moom fi ñu sotti essence bi loolu ci mbedd bi la nekk wala ci biir kër gi la nekk. ci mbedd bi la nekk. d'accord beneen bunt bi féetee ak miiru supérette bi foofu léegi yéen da ngeen a jàpp ne maanaam euh, sa pono jëkkër yi nga xamante ne dañ koo jamate woon ak ay paaka ak loolu noonu ñaata semaine la def. loolu un mois rek la def. ci diggante un mois la ci lañ lakkaat sa boutique bi da nga jàpp ne ñaar yooyu noonu dafa lié. moom laa xalaat moom la sama jëkkër xalaat moom la keneen ak keneen xalaat te ku ko dégg moom nga xalaat. lan ak lan nga doon jaay ci boutique bi. Euh, ay tissus laa doon jaay ay parfum ay cuuraay moom laa doon jaay sama boutique. Mhm. bi nga évaluer li nga xamante ne nii moom lañ moom moom moo yàqu ci boutique bi. wala lan moo des ci boutique bi. boutique bi li fa des rescapé la. kenn kenn mënu ko rescapé la daal. mais daal la ma fa defoon. dama à peu près rek ne leen valeur cinq millions. mais ma fa xaw ma ko xamuma ko. déjà li fa des matul sax un million. non non non non non. Mhm. léegi da nga porter plainte. le même jour la woo police. le même jour ci guddi gi. la woo police affaire bi mu ngi am ay vers deux heures du matin. ci la woo police police ñëw ay. deux heures trente deux heures quarante cinq yooyu xam naa ci la police bi doog a yegg si parce que mënatuma wax ne heure sàngam la def naa daal sama déposition. Hmm. def naa sama déposition. police ñëw na ba caméra na gis na fee yi. ok koñ bi ngeen dëkk da ngeen fa am ay noon wala yu demee noonu. Euh, non man man man sama dund yaakaar naa woon ne noon ma noonu barke alxuraanul karim man sama dund man yaakaaroon naa ne aw ma noonu man bu ma amee fukk. bu ma amee ñaar fukk nit ñi ñoo ko bàyyi ci sama loxo doomu aadama yi ñoo ko bàyyi ci sama loxo mais képp koo xamee ne sa wërsëg mu ngi woon ci sama loxo rek li ma am mu néew mu bari dama koy bokk ak yow. yaay booy amu leen foofu amu leen foofu ay caméra de surveillance ci buntu boutique bi wala sa buntu kër wala ci yu demee noonu wala ngeen soupçonné kenn. nekk fala xaaral ma wax la ne la sama boutique amul woon courant sama boutique. Hmm. amul woon courant. jour bi ñu ko lakkee ba le lendemain la waa Sénélec ñëw doon xool sama installation ndax baax na pour ñu indil ma compteur xanaa loolu neex na. deux jours avant boutique bi di lakk. non le jour bi boutique bi lakkee. Mhm. ba ci suba ga. mercredi si guddi deux heures du matin la boutique bi lakk. le lendemain. muy jeudi vers trois heures ci bëccëg. si la waa Sénélec woo ma téléphone dama ñoo ngi nii di ñëw sa kër. indiqué ñu. ma indiqué leen parce que dama ne du ma dem Sénélec damay bàyyi waa Sénélec ñëw gis seeni mhm. waa ju ñëw gis fee bi mu gisee fee bi nag ci la yaay booy ma ne ko ah ne ma lii doy na waar lii lu doy waar la ndax ci def lii su jàkkaarloo woon ak yow dina la rek ma ne ko alhamdulilahi rabil alamin parce que tom ju ndeyam liggéey laa man mhm. te sama jëkkër merew ma sama famille merewuñ ma sant yàlla bu baax laa def te ñi ma dëkkal mu néew mu bari xam naa sen xol ci man kenn merewu ma ci ba kenn ku ci ne xam nga la ma digaale ak yow sant naa yàlla bu baax nag. d'accord maman léegi euh, maanaam lan nga lan lan nga bëgg. non du dërëmu maanaam dama bëgg. du dërëmu dërëmu mu kenn moo nekk foofu. Mhm. loolu moom il faut ma wax leen ko. Mhm. du dërëmu kenn moo fa nekk. lebuma banque demuma ci magasin la maanaam du xaalisu kenn daal. loolu moo gën a euh, yombalal sama jëkkër mu mën a mu mën a te conséquences yi am yëpp mu mën koo gérer waaw mu mën koo dund ndax tey bu fekkoon dama leb banque wala tey ma demoon ci magasin jàmbur jël marchandise jàmbur ñëw indi ko ah dina metti ci moom mhm. ndax lu tax dina metti ci moom gor la yaaram la euh, dafa retraité mais terewul ngoram lay dunde barke alquranu karim mhm. ku gore ku ma sagal ku yiin mu ñel ma téye yàlla rek tax moo tax affaire bi soriwul sax ci moom méttiwul ci moom comme ni mu waroon a méttee ci moom hmm. may wax alhamdulilah rabbil alamina doom ju ndeyam ñaanal baayam ñaanal famiyam ñaanal ko ñaanal ko loolu dafa doy sant yàlla léegi maman ma waajur ne woon da ngay jedd mais doo tax d' accord d' accord léegi yaay booy euh, seen kon boobu noonu dafay dafay am euh, dafa manqué sécurité. waa amuñu gardien moom amul affaire bi fan la ci ci yëmbal. route de Boune. bu ñëwee ba route de Boune tableau xaadim. bu mm-hmm. ñëwee ba tableau xaadim su ñu def ñu def maam xaadim noonu. Mm-hmm. tout droit ba nga yëg tali karo bi boo yëgee tali karo bi rek continuer dugg ci biir cité bi. ok kon léegi da ngay par rapport ak euh, autorités yi ñu wutal leen ay matu euh, ay kii. Euh, kaaraange foofu ci ci ci ci ci koñ bi. baax na ci baax na ci parce loolu moom bu ñu ko amee day doon li ñu gënal xam nga lan moo ci metti mooy cité militaire cité militaire comico 4 yëmbal police baa ngi liggéey nag suñu police dañu liggéey de ndax ñu ngi raxas suñu dëkk bi ndax ba ci police bi nettagul woon lu ne dañ ko si daan dégg hmm. waaye police su comico yëmbal bi ah ñu ngi liggéey hmm. ñun daal sant nañ leen central bi sant nañ leen gërëm nañ leen hmm. te li gën a neex mooy boo ñëwee dinañ la dalal dinañ la déglu dinañ la toppal loolu am na ci ñoom du pour wax leen neex de wala bëgg lu leen neex li ma gis loolu laa wax. Mhm. waaw ndax nit ku nekk da ngay seet tëraayu bàmmeel te ëllëg nit ki dafay dee te bu bu deewee moom dong mooy tëdd ci biir bàmmeel la. Mhm. te nag lii moom gis naa ko yàlla ak yonent bi Cheikhul Khatim. Mhm. yàlla mi yor nag. mu gën a wóor caméra de surveillance yi ñuy am. ah yàlla caméra na ko te yàlla dina ko leeral. d'accord waaw. d'accord yaay booy kon merci beaucoup. Euh, c'est bon. je te te te te tooñ baaxul. léegi sama baat bi ñëwaat na de tooñ. tooñ baaxul de tooñ baaxul de xam nga kii moom kii moom kenn mun ko waxal dara lu dul jigéen ju am jom di liggéey ubbi boutique am waawoon ku mu xuloon kenn moom nee na ku mu kenn ku mu jàppanteel lu mu def dara liggéey donc de la méchanceté gratuite. de la méchanceté sama bàtt. mooy loolu de la méchanceté moo ñu tardel. gratuitement sax. gratuitement. gratuitement. bu noppi defoo ku dul jigéen lekkoo ku dul alal jigéen. Hmm. doo dem doo ma dem soo ko jékkoon ooy. waaye moytu. xam nga li ñu sàcc sa alal mu dem moo gën a seet. Mm-hmm. Mm-hmm. nee wax nañ ko. ci taal sa kom hmm. eh, bu la jëkkoon rey la. ay la lay nànk sax. naa ne kon moom keroog kenn benn jéeg taalul ci wallaay ma ne ko magasin cuuraay koo taal. ah koñ bi moom a jég taalu cuuraay bu bëccëg boobu. ah métti na nag ñu ngi lay masawu baax a baax. walaay ñu ngi koy masawu ñu ngi comme comme nga liggéeyu ndey ak ñaanu wayjur ngërëmal wayjur ñu la ci génne. ah. Mhm. nañ xaar ren ba déwén rek. waaw. ñu ñaan de daa tardé te dana feeñ de. nañ xaar ren ba déwén rek nañ xaar fii ak ren <laughs> nga am triple bi. Eh, eh. des fois borom day ju liggéey. Mhm. ak ku am ngërëmal way juróom. waaw mën nga yaakaar ne yàqal nga ko. Hmm. waaye ba mu ko fakkastalee mu rëppelu bu joga rek nga xam ne lépp. wallaahi maa la ko wax. xam ne lépp dëgg la. wallaahi ko la tiim ba ba ba nga yaakaar ni. asamaan na la tiim. moo oh, soba nee na lii xool bu xol bu feebar la. Hmm. duñu feebar. yow léeg-léeg ki nga jàkkaarloon magasin sax mën na laa mën na la ko def. Hmm. da ngay gis nga jàkkaarloo nit magasin. mu gis li li dugg ci sa sa magasin ci ay client duggul ci sa magasin. waaw mu koy fexeel la def la loo xam ne dootoo teg sa tànk. magasin wala boo fa duggee sa bopp bi di métti nga génnaat wér. Hmm. Mhm. dee ba loolu mënu ci dara nag mu day day taal magasin hmm. sax def court circuit nga xam ni moom sax day lakkaale. <laughs> <laughs> lakkaale boppam boppam. moom sax day lakkaale magasin bi. coow sama jigéen baa ngi lay nuyu madame si Fama Ndiaye. ñoom kañaan baaxul. nuyu na nuyu na nuyu Moussa Sarr. ngi koy fay ñu ngi koy fay baax a baax baax. Euh, Mantou te duñu duñu xool waa tra waa waa trafic. ci mel ko fi ne. allo Mantou. kooku. Babaale. Baye. jaar naa leen. sama ex sëriñ namm naa la. <laughs> ex sëriñ foo ne. Voilà, merci beaucoup. L'actualité du trafic est sur la 89.7. Donc, la patience ne va pas durer pour ceux qui au de l'intersection bu Castor foofu tey xaar bu yàgg dara ngeen daal di wéy seen circulation bi mën ngeen tàllal sur l'avenue Bourguiba pour les véhicules en partance vers rond-point C2 foofu la amul benn jafe-jafe même situation aussi si vous sortez sur les allées Ababacar Sy wala sax ngeen bëgg a wéy seen circulation sur les deux voies tali foofu la yëpp pas de difficulté mën ngeen ko jaar daal di wéy de nag sur la a mën ngeen ko jaar daal di wéy seen progression naka noonu aussi sur les deux voies affrontateurs pour les véhicules en partant te jar xaar yàlla foofu moom frais signalisation moo leen di xaarloo foofu ngeen dépassé intersection bu xaar yàlla aussi mën ngeen sàllar pour ceux qui souhaitent rallier rond-point Liberté 6 Mantes

58 dispose d'une politique de remplacement dans les 100 jours. Profitez de la promotion de fin de Ramadan du kan moo ma teralee lii. xanaa man mii sa gawlo kii mooy boisson king bi ci góobu neex bi. te yokk woyofte mooy mos. mosaa king daal king la. doomu king king la. <laughs> king boisson. ayoo king boisson. am na ananas am na tropical am na citron am na orange am na cola. am na fruits rouges. kii lu bees tax yegg am na citron vert. am na citron am na feuille de boisson. Morito daal <laughs> mooy mos mosaat. kii boisson. électricien yi ak yéen ñii di professionnel batiment ak particulier yi xibaar bi yéen a ko moom waaw waaw bu leen yàqati seen xaalis di jënd leneen lu dul tube orange bii di Sosenap bi tudd léegi turboflex mi tax mu gën a dëgër ndax mooy bi gën turboflex bu Sosenap longueur bi 100 mètres lay def teg si ñu defaree ko mu respecté tëméngoog ak norme internationale ma dolli tube orange turboflex bu Sosenap lu wóor leen ko liggéeyee te mu ànd ak qualité saa boo leen jëndee tube orange na ngeen xool bu baax ndax am na étiquette Turbo-Flex bu Sosenap am na itam ay tube normalisé ba si diamètre cinquante Sosenap 1982 ba tey lu yàgg dëgg la. bataaxal bi directeur SNHLM moo leen ko baaxee. société nationale ñeel habitation à loyer modéré di SNHLM mu ngi sàkku di ñaax mbooleen clientam gu am parcelle boo xam ne mettre wuñ ko en valeur ba léegi te seeni compte am tamit ay arriéré soxol ay paiement ñu jege leen ngir ñu régulariser seeni situation directeur SNHLM nee na may nañu lenn sax ab diir gu toll ci fukki fan ak juróom li ko dale bis bu ñu siwalee bi le communiqué waaye bu passé ab boobu direction SNHLM nee nañu mun nañu jëlaat parcelle yooyu ngir jébbal ko yeneen client mu di parcelle yu bokk ci sit yi ñu waaja lim Parcelles Assainies bu Kër Massar Rufisque 1 ak 2A ak Parcelles Assainies bu Malika Kër Massar mu di bataaxal boo xam ne directeur SNHLM moom moo ko génnee. Ah. wax wax sànq rek. Mm. yéeme na de rek la na doy euh, beneen bi bu mujj bi laaji mm-hmm. dañuy dem ginnaaw raay mm-hmm. mooy xale boobu nga xam ne euh, dañu ko faatoon te ab moroomam def ko xale bi nag mi ngi am 15 mm-hmm. ans meneen ki ko faat diggante 13 ans côté yooyu laaw dañuy déglu rek ay mbokkam ndax wax dëgg yàlla faat gi metti na anam gi mu amee metti na chimère ñu dem déglu ko ñëwaat ah, waaw man la délégué Pouy délégué Mor Pouy ginnaaw raay Grand Thiaroye 4 sama turandoo moom la ñu jam fii si ginnaaw raay quartier Amadou Ndiaye xale bi ko jam nag moroomam la bi ma ñëwee si suba lañ ma ko wax sama xarit bi El Hadj Ndione moo ma ko wax ma ñëw si kër gi ànd ak yaay ji ñu dem police bu ñu demee police ñu entendre ñu li ñu expliqué yaay ji xamal na ma daal ne xale bu góor bi ko jam moo ko ñëw jël si ne ko kaa ñu dem mu ne fu ñu jëm mu ne ko nañ dem rek comme danaa ànd ak moom mu ne ko nañ dem mu ànd ak moom génn ñëw yaayam nag d'habitude maamam dafa feebar moom la demoon seeti ji seeti ji maamam yaayam ñu koy ñu koy nëbb ne nañu doomam mais bi ñu ko jamee di ko yóbbu mu yàgg lool si yoon wi d'après ni ma ni ma euh, euh, adjudant say expliqué si leen ko yóbbu si benn engin yóbbu ko Dominique ñu ko yóbboo Dominique nag ñu koy bëgg may direct fa la yàlla def moom boppam ñu daal la trente bi dem waaw ki nga xamee ni mooy papa yi xale bi moo kii ñoo bokk ndey ak baay kii mooy Penda mooy seen mag kii xaritam El Hadj moom moo tax ma xam ko loolu euh, mi kañ la am démb ci korité bi jour korité bi. waaw démb si ngoon démb si ngoon laa am mm-hmm. si ngoon laa d'après information daal ni ma ko déggee démb ay huit heures la ñu wax waaw waaw dix heures dix heures onze heures daal moom la affaire bi am waaw mais daal ku ñu woo ni la kaay yóbbu xale bi blessé wu na taxi bu ñu arrêté mu bañ finalement waa finalement gardien bi nekk si garde bu bees bi mosquée bu bees bi ñu tabax fii si si tunnel bi gardien boobu moo mujjee jël engin yàpp si xale bi yóbbu ko Dominique balaa balaa muy dem fekk tel lu kuulee bëri na xale bi nan la tudd. Mor Ndiaye. Mor Ndiaye Mor Ndiaye Mor Ndiaye. 16 ans la mi ngi jur le 6 avril 2006. 2006 waaw. waaw ah, waaw sixième non fële euh, ah, Apix. Apix la nekk. waaw mhm. ah, ñu ne sixième Apix xale bu yaru du xool nit sax du siggi xool nit sax yàlla xam na ko man xale yi léegi seen jam yi man xaw ma ban façon la xaw ma dafa am lu ñu àndal xaw ma je sais pas man daal xaw ma nu mu demee. douze ans la treize ans la am wax treize ans la ñu am war nañu ma ko commissariat. xale bu ndaw la bu ndaw la man xaw ma lan la xaw ma film yi xaw ma lu ñu jëf xaw ma daal xaw ma daal yàlla daal moo xam man daal xaw ma daal moo bi ñu ma wanee ne ma xale bi la man mhm. ko jam moo garaaw mhm. si si euh, euh, si booru la ko jam da jam ba mu àgg ba mu ba mu paaka paaka cent franc yi la ko jamee cent franc yi njaay paaka mburu yi paaka boobu la ko reyee mais xamuñu lu leen il paraît daal dañ doon xeex si li a dégg jam na ko mais gaañ na si bopp parce que bi ma bi ma agencé wane photo bi photo mort avant ñu koy jël gisate woon léegi ñëw na gis naa bopp bi aussi ñu xaañ ko fii waaw man daal loolu daal laa si xam xale bi dem ba sa ngoon gis naa ko ay ban heure la ay six heures six gis naa ko maa papaam nag ay xarit lañu kii la tuddee doom rakku rakku xale bi rey man mii la ko tuddee mais démb bu ma gisee muy sol ay veeram solu comme korité la feet la maa ngi naan sama xel sax moor moo bëri tiitër Mor tamit ku bëri tiitër la vraiment après si la retaan ma dugg si kër gi dem ay booru 11h si ma nekkoon si parking bi fu laa gaare sama moto quoi ma ñëw ci gars yi gars yi ñoom waxtaan ak ñoom ba ñibbisi gis nit ñi taxaw. man leen lan lu xew ñu ne Mor Pouy lanu jam man Mor Pouy Mor Pouy junior moom leen jam ana ma gaañ ko yóbbu Dominique man après damaa jékki-jékki rek ñu woowaat ma na ma mujj naa wàññeeku quoi loolu rek laa si am mais xale bi yarul na amul benn problème vraiment dafa am kersa man papaam laa mais du si gis sax xool ma nag waaw dafa yaru trop nag xale bu yarul lool. ma si dara nag boobu ba léegi waaw mais daal man li gis ma fekkee. loolu la quoi démb moom nuyu naa ko foog moom diraay ko sax naakaan Mor Mor Pouye yaabar tiitër comme sa mais jour korité bi jour dix-huit heures laa ko gis vingt-trois heures presque ñu ne ma booy bi dee na. par la suite laa laajte ñoom ma la doon xeex benn moroom moo ko jëm mais man xaw ma nag fay quoi vraiment waaw loolu laa si am quoi vraiment mais nag xale ba mu benn problème la vraiment. xale ba amul benn problème la yaru na trop trop trop trop na woo jàng waaw mais mbiru yàlla moom aussi bu ñëwee dañu xam ne mbiru yàlla la quoi waaw dem ba papa ji woo na ma tey si suba nee na ma dem ba waxtaan naa ñëpp ba mu des sama tóndoo kese mais nee na ma man bi ma demee ba léegi moor su ma wax ak moom dafay am kersa du wax ak man xam lu waral loolu ma xam moor noonu la mel dem mhm. wax naa papa ji téléphone mbiru yàlla noonu la ma demee quoi vraiment vraiment. di ko ñaanal famille bi hmm, xam ngeen leen quoi xamante ngeen naa leen mais à cent pour cent quoi maamu xale bi. bi jam xale bi xam naa ko yaayu xale bi jam xale bi xam naa ko waaw. ñoom ñëpp xam naa leen mais vraiment man daal lii am daal. waaw métti na nag bu ko defee nag sant yàlla rek nag te xam ne ni mbiru yàlla moom bu ñëwee xam ne mbiru rek waaw vraiment doy na waar daal waaw doy na waar trop. yàlla na yàlla xaare aljana vraiment xale bu yaru bu baax bu am kersa dem rek dégg naa sax mu ngi tooñ yaay sax naa xam yaay mu ne rek nga toog te ñaanal ma ñaanal ma ma jàng suma ma jàngee ñaal si génne bu baax a baax yaay jox na ma loolu. waaw di fixé yaay ji rek waaw fixé yaay ji rek waaw sant yàlla sant yàlla démb mu yaay ji rek mu ngi fixé yaay ji fekk si waañ wi. yaay ni ko loo may xoole nii mu ne ko dara. yaay ji mujjee génne mujjee génne mu woo yaay yaay kaay ma wax la yaay ji ñëw mu ko mm-hmm. ak xale bi. man bi daal ci ngoon xale bi ko jam ñëw na di ko seesi léegi bu mu fekk sama rakk bu jigéen toog fii. léegi mun ne ko ana moor kooku ne ko xaaral ma seetal la ko fi daal di woo moor moor ñetti yoon moor uyuwul mu ne ko kon de moor nekku fi xale bi génn daal di dem mais bi muy génne no nee naa ko moor mu ne ah, ma ne ko bul guddee mu ne ma waaw rek daal ñu daal dañoo toog fii rek ñu indil ñu ko fekk ñu jam ko fii noonu lañ ko ko fii rek daal ay 10 yooyu rek. Hmm. Hmm, waaw loolu lañ ci am. dëgg yàlla yaay mi tam wax dëgg yàlla ku baax la xam nañ ko moom. dëgg yàlla ko am respect la bu lay nuyu sax du la xool dëgg yàlla. déedéet xamuñu kon xamuñu kon ak wax dëgg yàlla ndax damaa xam ne xanaa ni dëgërawul fit kay pour ñëw nit ki rek nga ñëw ba këram di ko seet xanaa xanaa kay. ñëw na ba fii ñëw na ba fii waaye di ko seet ci xam. xamuñu ko déedéet. mu nekk lu diis quoi. Mm, mm, xale bu yaru la. du wax sax ndeysaan xam nga dafa dër du wax. du xool nit ndeysaan. Mor kay eh, ma di a xalaatu moo ndax moo dina dee sax. rafet ak macha allah. wallaahi wallaahi. Oh. la moom la. daal loolu lañ ci am. ah nangu itam dogal rek. mbiru yàlla moom. kenn mënu ci dara. ñu ko ñaanal yàlla rek yàlla xare ko àjjana. yaayam sëy na fi de moom. yaayam moom muñ ña. sëykat dëgg la. sëy la ñu dañ ko ñaan su nekk sa doom yi ngi fi jur. yal na leen yàlla barkeel ndax dañu suñu xol dafa sedd ci moom suñu xol moo sedd ci moom. Ah. yal na yàlla jégal ko. amiin yàlla gën a kawe. amiin. may ay waajuram surtout xolu muñ. en tout sécurité moom manqué na de. xale xam ne xale yi sax nekkuñu ci kaaraange. ci tànk yi doo xam fu nit di mucc quoi parfois loolu ngay wax. xale dañ ko war sàmm. ba pare seetlu ngeen fan yi nit yi hmm. réer nu mu toll. wallaahi wallaahi hmm, dañ ci war a jóg ay disparition yoo xam ne. te dañoo xale yooyu nekk rek dafa inquiétant. bu ci nekk rek wax yàlla tey na xel. Hmm. comme Mansour Diop ni muy sax. <laughs> ngaa nekk di. julli nii sax su jot gaa yi këf la. daal di yóbbu. daanaka sàcc la. boo si jot si jot nga sëgg si gi nekk feneen. man man tur bu lalee di julli damay lal feneen julli man tur damay dalay téye foofu bëgg la ji te jamono ji saa yooyu. Cheikh Cheikh daañu fekk ngay julli tisbaar. nga ñëw benn rakkaat dong nga la am ah te moo naa ñu bootu ci man. wax dëgg de Cheikh Simi Dallone di wuti ba leen si yaata. man julli gaa jël ku ne yaa ngi àggal. saa yooyu. julli gaa jël temps. man damaa ma dugg ci biir bureau bi ah, ah. eh, mais atuma ah, nii nag ci fa ci fa tey jul la bokk de. alaaji yooyu dafa yooyu nekkatul jamono. alaaji da koy taal di ko neexal di ko arabal. day jël temps bismillah gi da koy neexal. tare bi sax du ma ko ñaangal. alaaji sa fatiyaa gi moom xam naa da nga koy diri rek. mais def yi def yi rek sëgg bi. baaraam sëgg bu yàgg bi sax mën nañu lànk. Hmm. maa sëgg bi moom doo ko def ci cappet déedéet ñoo xam ne comme kuy mbëkk sëgg de yàggal laa ngi julleem de barke yàlla moom nga faa def may julli di wokkatu wala may xaas xaas yi laay dëgg rek da nga koy da nga koy jox la mu la mu laaj oh. <laughs> règlement intérieur bi da koy respecté bi léegi dafa ñàkk sécurité bi fi mu doon nii waroo ba sa bopp sax ba waaye seen baa ah, wóorul baa danaa ne si joote ah <laughs> tey julli naa yow benn yoon boo xam ne boo ko rombaatee nga ne ko waa jiitu ba. li Ibrahima waxoon waaj rek mbétu ko amul liggéey. <laughs> waaj daa yor soowam di ko jaay. imam bi waroon téye naa fi liggéey ba rakk bi mën na ko def indi heure de temps. waaye eh, soowam du bu waaj ne salaamaaleykum jógaat rek allah akbar ko amul liggéey. <laughs> mais nag mais nag mais bu ñu waxee ci insécurité bi ci dëkk bi. Mhm. war nañu wax tamit ci suñu jukko yu ñore. fii nu fii nu fii nu teer bi ñi ko ñi ko ñi ko sulli. dagg ko yóbbu. Hmm. vraiment jekkul nag réew mi mënuñuy defar ñi di yàq. rafetul de. tey damaa am lu ma métti ba moom laa commencé. sama rëb ñuy defar ñi di yàq. rafetul de woo ma loolu mais ñi ko ñi ko jëloon nekk ci insécurité boo xam ne. parce que dafa war a mën a am conséquence de. Ah, xam nañ ko xam nañ ko bàyyi fa haute tension bi. mais d' après lu ma lire tey ci tribune mhm. affaire sàcc la. am na ñeneen nag ñuy wax leneen mais tribune moom affaire sàcc. mais am na fu ma gis ñu ne am na ay euh, ay yoo xam ne peut-être ñoom dinañ. waaw wax dama lay wax bi. Mhm. bi omarienne bi noonu. Mhm. Mhm. mooy jour ba bal ba. dagg ba ah, ba kii bi ñu doon dese mooy statut ba fa nekkoon doon fu bal. bal ba ne coppe ji. <laughs> kon amatul bal mu nekk ba xam naa ne bal ba ñàkkul ne xëy na xëy na bal ba cuivre la xaw ma daal. mbaa renaissance yóbbuñu doom ji. renaissance ñu wala musóoru bu ñu ci jotoon ba léegi dagg nañ ko dagg nañ ko wala ko pat la ñu teg si bopp bi nii def nañ ko def nañ ko de renaissance doom ji <laughs> hmm. doom ji ab ay magasin la de xaw ma ay saa ah, kon heureusement kon loolu ko tax a mucc xam nga bronze xam nga bronze la da nga xaw ma bal ba daa dinañ ko yóbbu kon mi nga ca ngelaw la rek leneen di ci tege moom mooy kii yi nii canal yi canal yi ci waaw kubéer kubéer yi ñu ngi ko yóbbu yëpp kubéer dañuy gàddu du yóbbu rek piilu terre bi ñi ko dagg ñi ko dagg ñi ko dagg ñu génn. xam xam nañ ko. xam nañ ko parce que ñu koy dagg di bu ñu jaay lañ cay am. di ko jaay nekk xaj si. autoroute bi daan fii li courant yi. tamit nag sénégalais bi euh, xam sénégalais xam lu mu banti doon. mais nit buy jëf imagine nga yow courant wu terre bi. dañuy defar mm-hmm. il mais est-ce que imaginer nga courant wu terre bi moo tax jël loolu xam nañ ne mën nañ ko jël te du xam te te te du leen. xam xamuñu danger bi de. Eh. non. Eh, man lu tax ñu bàyyi fay haute tension yi jubal ci tension yi ndaw yi. waaw xam xam nañ ko de xam nañ ko de. Eh. même base eh. même base station yi sax bu ñu amuloo matériel bu ñu ko daggee. dañuy dee mënoo tey gasee loxo. xam nañ ko de ko dagg xam nañ ko bu baax. day daa moo tax yii fii bu ko toppee. dana laal seen xol. am na ñoo xam ne dañuy jàng sàcc. man ñu soog. ñun war a ko defaraat bu baax a baax. teer ñaari portable bu seer bi un million fekk bi euh, euh, vingt mille nga bàyyi fa bu million ba. Ah. xam nga bu baax ne boo gën a baax. sama question mooy ñoom loolu ñu def. est-ce que sóoraal nañu ñaata nit la ñu naroon rey tey. c'est ça nag catastrophe boobu noonu. la ñu waroon rey yoo xam ne teer la ñu war a jël teer bi saaraan. dañoo mujj nu muy dawee subhanallah nu dawee. muy ma ñun mesure ñu mesure ñu lu ñu def. bu ñu leen jàppee dañu leen war a teg giiru dund. crime la. Ah, ah. xam nañu ne fii la ñu jël. crime la ñu daaneel terre ah. xam nii. nekk crime la. xam nañ ko de. xam nañu exactement la ñuy def xam nañ ko de. xam nañu ko baax a baax a baax. non yenn yenn jikko yi moo mën a ñàkk. ñun Sénégal vraiment war nañu defaraat suñu jikko ci lépp nag. day taw fekk fa ñu tëjoon euh, euh, fa la ñu doon tëj si rebord yi nga tijji ko jël yóbbu. fii laa koy wax koy waxaat coupe d' Afrique bi xaw ma fu ñu ko denc fii ci fédération bi. ndax Baara sàcc dañ koy sàcc de. <laughs> dañ cee sonn ji. ni or la dañ a denc coupe d' Afrique de. <laughs> sama xarit bi ne ne cu cuivre bi. kilo cinq ah, mille kilo bi cinq mille kilo bi cinq mille la. Ah, bal bi diis léegi 60 mètres euh, kii bi la. wala bal ba ngay wax yow. bal ba. non maanaam. bal ba bal mooy balu waaja. Ah. moom mi ngi si air bi ba léegi di fa bal. non kooku xa ci tànk yi lañ jëm jëm jëm si. Ah, tànk ba moom ah, xam naa suuf la rek. godaas ba la ñuy jël bu fekkee tànk bi cuivre godaas dañ koy dagg yóbbu. <laughs> moom bu gaa <laughs> kon ko dagg dagg nañu bal ba yóbbu. yàlla na xel dee seex. maa ngi xalaat waa ji ñu ñu ak seen war a dagg non ak élan bi mu jël pour tël bal bi ñu war a dagg. waa ji bàyyi ko ci gilaw li. gars yi dina ko li nga taloon ne nii xaalis la. <laughs> corniche bi. ka doon talonné bal ba gars yi. mais instant bii ñu ngi defaraat corniche bi nañu ko nañu ko bal. sax gis nga boo demee ba ci. mooy fa Viviane defoon clim ba. waaw ah. defal corniche boobu nag. Ah, itam ñu ngi defar corniche bi xanaa nañ ko delloo balam. da leen échappé ñëpp journaliste yi. ah alaaykum da ngay dugg dossier bi mais na na nga koy taaral de. ku bi. Oh, xaw ma a waaye ñu ngi koy taaral <laughs> moom day xool dossier bi ka gagné. day <laughs> eh, mu nekk comme building administratif. dossier bi nga war a gëstu. mooy tey le témoin gi nii xaama jox la ko. Mm-hmm. ndax Macky Sall dafa wax ne. Mm. dañuy yeesalaat euh, hôpital la doon. waaw waaw oh. bi. mais dañu gis ne dafa am ñenn ñoo xam ne ay. ay eh, eh, courtiers d'État lañ. waaw ñu ngi yëy nopp waa ji. pour mu jaay six hectares jox ko indien yi ci cent cinquante milliards. indien du fa installé. dossier bii la Dantec bi nga di yàlla boo leen ko defaree bàyyi leen fii la Dantec waat. courtier d'état yi daañu ko fa ñëw. bu leen ko toxal indien du fa installé bu soobee yi nag ñoom suuf la ñuy bañ. indien yi moom moom fu mu nekk moom raatale nañu Dakar. baalu. non loolu moom sama baat ni poto du question boo dikkoon ci biir xet wala kii na non. ah dañ leen ko yombalal. indien yi. ni ñuy def ceeb la ñuy def suuf. Hmm? ñooy. dinaa la jox ay hmm. tey yal na yàlla sàmm leen amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin yal na yàlla làq ñu fi yàq eegul. amiin yal na musal ñu ci pexem noonu. amiin yaa rabbal aalamiin yal nañu amus tuut. amiin mënus tuut. Mm-hmm. tey jëfus tuut. amiin amiin. ah alaaji na bëri nag. na jëf ji bari na jëf ji nee nañ bu jëf ji baree nga ne man a bu wax ji baree du man ñun tollul du ay millions de ay milliards la toll. waaw ay dërëm dee ak ay milliardaire. laaj ñaanal ñaanal ñaanal lu bëri. million dafa petit de million léegi moom. alaaji la ñu am lu bëri xasee ba toj nekkatul million. non man million man man bu ñu ma tuddee million dama damay xam ne kii xeeb na ma trop. wallaahi million dama ko yàlla. wallaahi. fii réew mi toll de boo waxtaanee ay million moom te milliard nekk fi nii. million moom mën ko ndékkee. ku ma ko séqal damay xam damay xam ni. dëgg yàlla million ndékki la yow yow yow considéré woo ma. benn gëdd yàlla baax na. joxoo ko benn gëdd. sunu sunu compte yooyu nekk bu ci de. yàlla xam na million la nga xam joxoo benn gëdd. su ma génnee bloqué a sa numéro. million million. million. million kii la nag. million nga jox ma ko. million nga koy ndekkee. yi ah, léegi. ah ah dépassé na million. waru gari sa dépassé na million. yow man la million boo ci booyalee. doo am lu ëpp suuna bi. boo defee doo doo am naana. boo léwalee doo am naana. yaa ngi see may tooñ de. yaa ngi see boo ci léwalee doo am bi doo am naana. mbi gii la jege million yóbbuwul. mbaa Mauritanie million yóbbuwul. yow dëgg-dëgg man lay boo wàccee dix heures ak midi li nga war a million tuuti na ci dëgg la. waaw maa ngi ko doon ndekkeem ëpp na un million wax fa dëgg. wala yàlla na yàlla million. ma leen tëj leen bu leen ma tooñ à chaque fois mu lay may million bi nga génne rek semaine bi nga génne. yaa dul calculer rek mais diggante lundi ak euh, dimanche. dimanche lekk nga million. ay Cheikh bàyyi ma waaye Cheikh. ci Cheikh dama ciy lekk trente bu mat. ñun nguuru Macky bàyyi xel de ah. ah! bu mat. waaye bàyyi xel de. nguuru <laughs> la ah, milliard la de. doole yemul yéen foofu ngeen toll ba suba. <laughs> Ah, nanu mun rek. <laughs>